asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi noo ngi sant yàlla sun borom tabaraka wa taala di julli ca yenente ba sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ko mboolem jullit waaw kii di wax ci saxaaba yi niñ bëggee woon yenente bi sallallahu alayhi wa waaw li ñu mata li mata xam rek mooy mbëggeelug saxaaba yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amut lenn luñ ko mën a tolloleel ndax seenug dund yépp dañ koo paase ci bëgg yàlla ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yémale ko woon ak dara ak dara waxoon naa la ni bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam yéemul rek ci ñu ni yonent bi nga ni ëskey wala ngay fottasu wala nga joxe sa alal loolu bu dee bëgg yonent bi du lool dong mooy bëgg yonent bi fekkoon yonent bi ak ak bëgg maanaam bëgg yonent bi bu doon géej la benn toq ndox mooy ñu ni yonent bi nga ne ëskay wala nga fottasu wala nga joxe sa alal benn toq ndox lay tollool ci géej gi waaye nag bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam mooy fas yéene roy yonent bi alayhi salaatu salaam ci léppam ci waxam ci jëfam ci doxalinam ci colinam ci léppam ci léppam bëgg mel ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mel ne yonent bu taxaw a ngi nii loolu mooy bëgg yonent bi waaye nag di ko défendre ci lépp wormaal ko yëkkati aw turam ci boppam yëkkati jëmmam ci boppam doo bëgg dara lu ko laal doo bëgg dara lu ko taq te luñ ni moo ko wax ba mu wér nga fas yéene nekk ci loola luñ ni moo ko tere ba mu wér nga xaraamal ko sa bopp saxaaba yi nag danoo jàngoon alquraanul karim <clears throat> luñ jàng lu ne dañ koy jëfe bala ñoo àgg ci leneen sun borom tabaraka wa taala mooy sunu borom moo nu bind moom ci boppam bëgg yonent bi lool yëkkati ko lool màggal ko lool kon mbëggeeluk yén saxaaba yi ci rasulullah ñu ngi ko jëlee ci alquranul karim sun borom tabaraka wa taala bi mu waxee laayab annabiyu awlaa bilmuminina min anfusihim wa azwaajuhu ummahatuhum yàlla daf ni yonent bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën a yay jullit ñi ñépp ci seen bopp maanaam moo gën a jege jullit ñi seen bopp ci wàllu diina ak ci wàllu adduna lépp lu yonent bi alayhi salaatu wa salaam bëgg jullit ñépp war nañ cee dox war nañ cee nekk lu mu bañ war nañ koo bàyyi yonent bi su bëggee am mbir donte bëggoo ko sax danga ko war a bëgg par force yonent bi alayhi salaatu salaam su bañee am mbir donte da nga ko bëgg yow danga ko war a bañ par force loolu mooy ak yàlla dëgg wor ma ji sun borom jox yonent bi tax na mu ni ay soxnaam moom yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo nekk ndey jullit ñi ñëpp kenn ku ci nekk bët bi ngay xool sa jur wu jigéen boobu bët nga war a xool soxna sa rasulullahi alayhi salaatu salaam gannaaw yonent bi kenn du dem takk soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ leen di wormaal jox leen cër comme suñuy way jur yu jigéen foofu la suñ borom teg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam am na benn bés saxaaba yi taxaw ak rasulullah alayhi benn waay ñëw ni ko yow yonent yàlla bi maa ngi lay laaj kañ la yowmal qiyaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko ana lan nga waajal yowmal qiyaam googi ngay laaj ji ni ko man day waajalu ma yowmal qiyaam ci julli gu bari ma ko ci woor gu bari waaye day li wér mooy ku bëgg yàlla laa ak yonentam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko yow ak nga bëgg yéen ànd yowmal qiyaam anas nee na mbégte mi saxaaba yi àndal ci bés boobu mësuñu ko bëgg benn yoon ci seenu dund mbégte mi ñu àndal keroog mësuñu ko bëgg lu tax ndax wér na leen ni ñoom dañoo bëgg yonent bi mbëggeelu dëgg kon dañ ànd ak moom ëllëg yowmal qiyaamati kon boo bëggee yonent bi tamit dëgg ci yow lépp lum ne danga cay nekk parce que saxaaba yi ñi ngi woon ci loolu gis nga alquran ji ma lay wax ci la saxaaba yi jëlee mbëggeelu ko rasulullah yàlla sunu borom ci wekk gu mu wekk rasulullah bëgg gum ko bëgg tax na mu wax ci alquraan ni yaa ayuha alladina aamanu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nnabiyi wala tajharuu lahu bilqawli ka jahri bacdikum li bacdin an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla yéen ñi gëm yàlla ñépp la yàlla di waxal nee na bu leen yëkkati mukk seen kàddu ci kaw kàddook rasulullahi alayhi salaatu wasalaam bu ngeen di wax ak yonente bi wax leen ndànk ànd leen ak dal ànd leen ak yar ak teggin ci wax ji bu mu wax mukk ngeen yëkkati seen kàddu ci kaw kàddoom mukk bu leen ko def ndax ñu njëkk ña dañ ko daan def te yéen bu ngeen ko defee seen jëf yi ngeen jëf day dana yàqute du ngeen ko yëg kon ànd leen ak yar ak teggin ci kanamu yonente bi alayhi salaatu wasalaam rawatina su ngeen di wax ak moom xam leen ni yéen a ngi wax ak ku baax yéen a ngi wax ak kilifa yéen a ngi wax ak ki nga xam ni mooy ki gën ci nit ñi yàlla dellu waxaat ni na inna alladina yaxudduuna aswaatahum inda taxe na alladina imtaxana allahu quluubahum littaqwa lahum magfiratun wa ajrun azim yàlla nee na ñi nga xam ni day bu ñu wax ak rasulullah dañuy wàcc seen kàddu ba mu suufee ngir bëgg rasulullah ngir am yar ak teggin ci kanamu yonent bi yàlla mu ni ñu dey seen borom may na leen ak ragal yàlla ci seen biir xol te ñooñu danañu am ak njéggaluk borom bi daañu am pay gu mag lool lu tax ngir yar gi ñu won yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu moo taxoon saxaaba yi ci seen bopp bëggoon yonent bi lool amoon yar ak teggin lool ci kanamam aleyhi salaatu wassalaam benn saxaaba mi ngi nii bu ñuy wax muxiira ibnu shuba mas naa ko fee nettali benn bés dafa am bés yonent bi alayhi salaatu wasalaam taxaw di waxtaan am ku ñuy wax urwa ibnu mas'ud ñëw di wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam urwa mii bi mu wax ak yonent bi daa di yëkkati loxoom bëgg a jàpp sikki mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk bi muy wax moom urwa Urwa ab saxaaba la maanaam Mugiira ibnu Shuba mi ngi taxaw ak bi booba saxaaba la Mugiira ibnu Shuba saxaaba la mi ngi taxaw ak rasulullah bi loxoom bëgg jàpp sikk mu yonent bi te loolu du yar nga taxaw ak kilifa bëgg jàpp ab sikkimam xam nga du yar Mugiira ibnu Shuba mi nga xam ne saxaaba taxaw ak rasulullah dafa rocc jaaseem bi mu roccee jaasi ji teg ko ci loxob Urwa ni ko sa loxo bii buy tegu ci sikkimu rasulullah ma di ko dagg sa loxo bii nga yëkkati bëgg ko jàppee sikkimub yonent bi bu sa loxo di tegu ci sikkim bi loxo bi di wàcc ci suuf na daa ko dagg lu tax parce que kii taxaw di saxaaba bëgg na yonent bi lool am yar teggin lool ba bëggul kenn ku ko manque respect nii la saxaaba yi meloon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama Urwa ibn ibnu Mas'ud mii doon nettali mbir mi daf ni day li ma gis ci saxaaba yi rasulullah mësuma ko gis ci kenn koo xam ni ay ndaw lañ ci seen kilifa yonent bi su su xaddami koo maanaam su xaaxtandikoo bopp saxaaba yi ci boppam dañuy njëkkante jël ko ngir raayoo ko ngir bëgg yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi bu daan jàpp saxaaba yi xaw tuut dañuy rayante ci njàpp li ngir bëgg bu yonent bi desalee ñu jël ndox ma jàpp ci ñoom ngir lan ngir bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wa salaam nii la ko saxaaba yi bëggee woon waaye nag ni nu ko bëggee woon ni ñu ko doon dimbalee moo gën a bari am na benn saxaaba bu ñuy wax sawaad sawaad dafa am benn bis ñu taxaw ci benn xare di waajal xeex yonent bi alayhi salaatu wasalaam jël ab bantam di defar sàppay saxaaba yi ni taxaw leen nii taxaw leen bi mu ñëwee ba ci sawaad sawaad ibnu xusay ni ko sawaat defaral sa taxawaay bi daal di koy puus ak bant bi sawaat gis situation bi ni demee mu ne lii occasion la naa ko utiliser sawaat ni ko yow rasulullah sa bant bi dóor nga ma ko ci sama biir dama bëgg a fayu dégg nga de yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëkkati am mbubam ba biir bi di feeñ ni ko yow sa waat fayul loolu rekk war ngeen ci dégg ni kilifa dëgg mooy rasulullah mbaax dëgg ci rasulullahi la fekk baax yar ak teggin dëgg ci rasulullah la fekk baax ragal àq ci rasulullah la fekk baax mu yëkkati mbubam ba biir ba di feeñ mu ne ko sawaat fayul bi mu ko waxee rek sawaat daa di ñëw ci kanamu yonent bi daa di koy songu commencé di foon biir bi di fóon biir bi di ko fóon di ko fóon saxaaba yépp gis ko nag daa di yéemu ci lim def ñu ne ko yow sawaat lu tax nga def lii sawaat ni leen gis ngeen ni xare bi mel man xawma dama ciy dee am duma ci dee te yaakaar naa dama ciy dee ma bëgg bala maa faatu sama yaram mujj laal yaramu rasulullahi alayhi salaatu wasalaam loolu rekk laa bëgg moo tax ma di ko def nii waaye bëgguma fay mukk dama bëgg rek sama yaram mujj laal yaramu rasulullah ndax su may dem yowmal qiyaam yóbbaale ko allahu akbar ci la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal aw yow gis gis gis nga ko saxaaba yi ci seen bopp nii la ñu meloon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi nii lañ meloon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu lañ ko doon defendre ci lépp noonu lañ ko doon taxawoo ci lépp mësunoo bëgg kenn laal ko waaye loolu ba tey ñu ngi ko jëlee ci sunu borom tabaraka wa taala sunu wax na ci alquran ni illaa tansuruuhu faqad nasarahu llah id axrajahu alladina kafaru thaniya thnayni id huma fi lgaar id yaqulu li maana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa jaala kalimata alladina kafaru sufla wa kalimatu llahi hiya al ulya wallahu azizun hakim yàlla nee na su fekkee yéen dimbaliwuleen yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngeen dimbali ko ak ngeen ñàkk koo dimbale ci yam na ngeen xam ni li wér te wér mooy yàlla seen borom dimbalil na ko boppam keroog ba ko yéefar ya génne màkka muy jóge màkka war a jëm madina ànd ak abu bakrin siddiq keroog metti woon na ci moom tar ci moom lool mu wéet lool ànd ak xarit ba xarit ba di saxaaba ba di abu bakar abu bakar tiit lool ci yonent bi ragal lool ñu laal ko wala ñu lor ko bay lux yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu borom wàcce ci ab xolam ak dal wàcce ci moom ak féex yëgal ko ne ko maa ngi ànd ak yow ci sama ndimbal ci la yonent bi ne ko Abu Bakar bul tiit yàlla mi nga ànd ak ñun ci ndimbalam dina ñu taxaw dinañu dimbale yàlla nee na keroog dama yebal ay malaaka yoo xam ne kenn ci mbindeef yi mënu leen a gis ngir ñu taxawul ma rasulullah dimbalil ma ko ba mu àgg te dara du ko lor suñ borom ne na lii lii laa defoon keroog te fexe naa ba kàdduk ñi weddi woon yàlla féete suuf kàdduk yàlla féete kaw mooy lan mooy rasulullah képp ku bañoon rasulullah bëgg ko lor keroog da ngaa ruus da ngaa sëgg wàcc torox lool rasulullah yëkkati ko jëm ca kaw ànd ak saxaaba ba di dem te kenn loru ko ba mu àgg ma diina te ay lu mat junni doomu aadamaa ko doon wër di ko topp ngir lor ko suñ borom yebal ay malaaka ni toppal leen ma ko bu ko kenn lor bu ko kenn def dara kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñ borom da koo njëkk dimbali boppam ba noppi saxaaba yi wan ko mbëggeel di ko dimbali fu mu mën a taxaw ci saxaaba yu góor yi ak yu jigéen ñi kon nag ñun ñii nga xam ne ay jullit lañ li nu war mooy bëgg yonent bi ci bépp façon bëggeel di ko topp di ko roy ci lim ñu wax lim ñu tere ñu di ko jéem a bàyyi fas yéene lu mu wax lu nekk te ñu wér ci sunu bopp nu fas yéene def loola te xam ne yonent bee ko bëgg ci ñoom te yonent bi bu àddoo sunu kàddu amatul njariñ kàddu ko yonent bi la ñuy jëfee bàyyi sunu kàddu ak lu mën a xew ndax yàlla ñoo ko wax annabi yu awla bil muminina min anfusihim loolu mooy li ñu war waaye ñu ne yenent bi nga ne ëskey wala nga joxe sa alal loolu dong du bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye it booy xeex ngir défendre rasulullah fexeel ba xeex lépp luy bokkaale fexeel ba xeex lépp luy nger fexeel ba xeex lépp luy tooñ fexeel ba xeex lépp luy wor lépp lu rasulullahi bañoon na nga ko xeex te am ci fit ñeme ci lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam mësuta nangu fekk fu ñu bokkaale suñu borom te défendrul loola mësuta fekk fu ñu waree te waxu leen ko mësuta fekk fu ñuy tooñ te défendrul kañu tooñ kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu bañoon lépp na ñépp jóg taxaw ngir xeex loolu waaye buñ ni rekk nañu défendre yonent bi dong yam ca waaye lépp lu mu bañ ku ko def nañ ko défendre ni du fi amee mukk duñ nangu ko fi bokkaale ak suñ boroom duñ nangu ko fi tooñ kenn duñ nangu ko fi def lenn lu bon buñ ko mënul sunu kàddu ñu yëkkate sunu làmmiñ wax yonent bi bëgg ko woon nangu ko woon ñu ngi koy naqarlu ñu nit noonu la ñuy bëggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la saxaaba yi meloon bi fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jógee saxaaba yi taxaw temm ci lépp lum bañoon ñu bañ ko lépp lum bëggoon ñu bëgg ko di ko ko doxalal ba sunu jonn yàlla tey ba nu jot ci diine jot ci alquran ak na di ko mën di jëfee ci jàmm ak salaam léegoo rek nga dégg ñu ni ba diina raafee sun maam diw moo jógoon yëkkati kàdduk nangam sangam gis nga ñooñu ñëpp li ñu bëggoon rek mooy fexe ba li fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxaloon ñu jéem ko fe saxal ba du raaf mukk kon yonent bi défendre ko tekkiwul rek di yëkkati ay drapeau ci aw turam ak yu mel noonu waaye dañ koy défendre ba di défendre lépp loo xam ne lu bon luñ fi bëgg saxal la moo xam muy ak ngóor jigéen moo xam muy ak bokkaale ku fi waxati benn kàddoog bokkaale ñu la du dëgg déedéet ku wéet la yàlla kenn la yonent bi mooy ki gën ci nit ñi mooy ki gën a jege yàlla mooy ki yàlla gën a bëgg waaye kon ku fi yëkkatee sa maam bokk ko féetale kanam ci rasulullah ñu ne la mukkukaay kaay sa maam na féete ginnaaw rasulullah sa baay na féete ginnaaw rasulullah kon ki féete kanam ci bépp ju ci bépp mbindéef mooy rasulullah loolu moom noonu saxaaba yi meloon ci yonent bi mësuñoo nangu benn yoon seen kàddu yëkkati ko xam nga yàlla bu ne sa kàddu bu mu ko ci kaw kàddu ko rasulullah kon du nangu nga yëkkate sa maam ci kanamu rasulullah yàlla mu ni yow mi wax di suufeel sa kàddu ci kanamu rasulullah yàlla dina la fay waa yow mi yëkkate sa maam wala sa baay wala sa yaay ci kanamu rasulullah kon noo mel kon yàlla mu ni sa jëf mën na yàqu te doo ko te doo ko yëg nanu ci bàyyi xel bu baax yàlla na nu sunu borom tabaraka wa taala saxal ci bëgg yonente bi ci mbëggeelu dëgg yàlla na nu sunu borom tabaraka wa taala saxal ci te defal nu jàmm ci àdduna ak alaaxira defal ko mboolem jullit wassalaamu aleykum wa rahmatullah